alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah man tabi mbokk yi jullit yi mbokk taalibe yi ñoo nuyu ñëpp di nuyu suñ xalif papa Maay Ñas di nuyu suñ imam imam Cheikh Tidiane Cissé di nuyu euh, porte-parole de la Qadra mooy Cheikh Maay Cissé mbokk yi nag tey boo leen gisee nag ñoo ngi fii kër Abibou Ñas dëkk bu mag dëkk bu tedd dëkk faydu tey nag ñu si gàmmu mag gàmmu gu teg euh, mu nekk cinquième édition fii si kër Abibou Niass dañ ñëw nag def dëkk documentaire taarixu dëkk bi dëkk bi ban at lañ ko sànc dëkk bi nangam dañ si ànd ak imam bu tedd ànd ak ay mbokk taalibe yëpp ñëwaat fii nag guddi ñu indi leen gàmm gu màgg gàmm kan moo koy sikkar Mouhamed Ndaw am na ñeneen ak ñeneen ñeneen ñeneen xam ñooy ñëw gàmm gi nag kan moo ko taxawal Cheikh baay Guèye moom lañ nar a àndal tey si guddi gi kan mooy waxtaan gàmm gi kan moo nar def séeré gi yëpp topp lañ si incha allah ak si doxo Baye kon sëriñ bi ñi dem ba si kanam ñu dugg def interview incha allah rabbi mbokk yi ba léegi rek ñoo ngi taxaw ak euh, président du sénateur Moustapha Niass euh, Moustapha Niass tey dañoo bëggoon xam comme laajte ñu bëgg xam organisation bi nan lay demee ndax dañoo gis organisation bi macha allah gis bâche yi gis lépp gis taalibe yi nu ñuy jàppalantee ñu bëggoon xam maanaam na na def ba déggoo ba organisation bi am. waaw xam nga loolu lu koy waral mooy xol rek. Hmm. xol yi moom buñ ñu xasee dëppoo. Hmm. lépp loo bëgg rek day sotti. Hmm. parce que tey xët-xët mayul dara. dëgg la boo nekkee président organisation. da ngaa yaatu. parce que yaatu gi mooy lan hmm. nga xëcc mag mi xëcc gone gi taf sa pegg boo xëccee mag mi xëcc gone gi li gone gi mën a jàpp dana ko jàpp li mag mën a jàpp dana ko jàpp te loolu rek si lañ ne ndax yàgg nañ koo def defuñ nag couvrir luñ événement bu mag. Mhm. mais yàlla ñuy dimbale ba organisation buñ dem rek. dinañ ci mën a am ndam daal. dëgg la moo tax loolu rek moom la ñuy topp jànguñ ko fenn mais dañuy jiital suñ xalaat rek. ànd ak boo normal. waaw en tant que président d'organisateur ñu gis mbokku taalibe jóge fi ne ñii jóge Dakar ñii jóge Kaolack ñii jóge feneen ak feneen maanaam noo leen def ba organiser ba taalibe yi di ñëw heure bii nu maanaam nu mu fa lan mooy seen complicité ak kii bi. waaw xam nga yàlla daa def nag ku ne Kër Baye Cheikhou Cissokho mhm. wax discipline. bu ñu ne discipline mooy dañoo yaru ndax yaru gi ñu yaru moo tax duñ naqadee defal organisation ñoom déjà ñoom ñoom rek organisation la parce que ni ñu ñëwee moo tax tey ci tey bu nekkoon dañuy ñëw dem foo xamante ni du dëkk du dara ñu ne dañ fay def gàmm ñoom boo ñëwee da ngay fekk ñu def le ba toog parce que xaaruñ leen loolu la ñu bàyyi si wax jàngal ñun loolu lañu xam mm. noonu la ñuy liggéeyee moo tax fu ñu dem rek loolu la wanee wane tey boo seetloo ñu ngi fi ak suñu grand mais ñoom bu ñu ñëwoon jël organisation bi hmm. konoon man sax dama ciy gën a tuuti ndax loolu rek lañ xam dëgg la ba léegi rek ñoo ngi toog ak imam imam nuyu la mbokk yi ñu seetaan askanu info tey nag waa askanu info ñëw fii kër Abibou ñas di euh, ñëw def documentaire si kër Abibou Niass alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi nuyu mbokk yëpp ci turu kër Abibou Niass yëpp di jiital ci nuyoo bi imaamu dëkk bi waaye buñ ko nuyoo danañ nuyu boroom dëkk bi buñ ko nuyoo nuyu nañ waa dëkk bi yëpp di jaaree ci bunta mbooleem njabootu Abibu Ñas ak li ci xaju yëpp ak njabootu ngéyee nag njànqee nag mboolem dëkkandoor yi fu mën a nekk ci kër Abibu Ñas waaye fu waay mën a nekk ci alamul islaam waaye fu waay mën a nekk ci faydu Mawlana Cheikhul Islam El Hadj Ibrahima Ñas radiyallahu anhu ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi ziyaara ñëpp di ànd ak mbégte lool lool lool ci bés bii nii hmm. di leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëwoon nag bëgg xam dëkk bi ban at lañ ko sànc kër Abibou Niass waaw kër Abibou Niass nag sañcam mën nañu wax ne lu yàgg la ndax ñu ngi ko sanc ci gannaaw Taïba Niassène hmm. ndax dëkk la kër la ci Taïba Niassène hmm. mën nañoo wax na daal suma ma juumut ay 1930 ba jàpp 33 yooyu ci sancab Karabi bu ñes kon dëkk la boo xam ne boo ne Taïba Niassène daal dëkk yëpp fii ci Njolofeen gii Mbitteen mooy dëkk bi mag ci dëkk yi buñ ne Mbitteen mooy dëkk bi mag ci dëkk yi da ciy déggee ne mboole mag ñi nekkoon nañu Mbitteen gannaaw gi ñu xeesalaat sancab Taïba di lee sanc bi jiitu woon na loolu gannaaw gi Karabi bu ñes moo ci topp ci dëkk Njolofeen yi fii waaw kon dëkk la boo xam ne ci dëkk cosaan yi la bokk góor gu ñuy wax Abibu Ñas mooy ki ko sanc ci ndigalal Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Ñas radiyallahu anhu gannaaw bu mu ko ci tàggoo am ci ndigal ci la sanc dëkk bii di Kër Abibu Ñas waaw loolu moom rek lañ ciy wax ci taarixu Kër Abibu kon ku wax dëkk wax boroom dëkk léegi bu ñu bëggoon xam sëriñ Abibu Ñas moom mooy kan ak nan la def ba taxawal dëkk bi incha allah waaw Abibu Ñas ci lenn rek pour ñu tënk ko xam naa wax mooy kan du yomb ndax ku yàlla jox cër la ci mboolem xeeti cër yi ci cër yi ci ñooñ jamonoom yàlla mayoon na ko loo xam ne mboolem ngëneel yoo xam ne bii day dajee ci nit ki ci niti jamonoom rek yàlla séddoon na ko ci cër boobu kenn la ci toppam Malaaj Abdoulaye Niass Habibou Niass taalibi Malaaj Abdoulaye la woon yàlla dogal bi Mawlana Seexal Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallaahu anhu feeñee ci faydu bi ak ngëneel yi dajee ci moom mu bokk ci taalibe yi ko njëkk a wuy loolu bokk na ci lenn rek ci li ko dëggal mooy naar gànnaar bi bi ñuy wax sayxaan yi ñu koy wax mën a abba bu ñu ko waxee ci faydu bi danañ xam ne teel naa ñëw ndax lu nit gàtt gàtt dégg-dégg dégg nga woykat bi ne ka njëkk a ñëw kooku moo di moo di wul nax wi moo ak alaaji haadi ak wul nax wi ñooñu njëkk a ñëw naan ko min laa sàkk fii yaa rasulullahi kooku ña topp kooku mooy seyxaani naar yi njëkk a ñëw booy lim bala boo ne ñaar rek ni ñett seyxaani kooku yàlla dogal na moo na seexal ala seexal islam alaaji ibrahima ñas radiyallahu anhu na ko fii mu ñëw fi ay yoon ci góor gi moom seyxaani ngan seyxaani moom moo bind ci góor gi habibu ne kullu sayrin yuddini habibu bépp doxkat jegeel ma habibu wa minhu julla qaribu moom lu ëpp ci moom dafa tumuranke ci ñeneen ñi kon nga déggee ci ne kooku seexaani joxoñ na jikkoom waaye tànn na jikkoom ci jikko yi nga xam ne moom nekkoon ay qualité ci toppam Mawlana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu lim doon wax nag ci moom naan lu ëpp ci moom dafa tumuranke lu jafee dégg la ëpp ci moom dafa tumuranke ci ñeneen ñi du teraanga jum ko defal waaye muy firi mooy seexaani naar gànnaar la ñoom gis nañ ne Baye Niass radiyallahu anhu tumuranke na pour ñooñ jamonoom ci mag mu yem ni Abibou Niass nangul ko tumurankee na nag gannaaw bu mu ci pour ñu ku mel ni Abibou Niass nangulut ko ñu gis loolu ñoom xam nga xam ne kii normalement waroon na am lu ko gàllankoor ndax xàggoon naag Malaaj Abdoulaye ba Malaaj Abdoulaye naan ko Abdou moom waayam du ko xaaree ëllëg fii laa lay fayee kon taalibi Alaaj Abdoulaye loon boo xam ne bii dund naag Alaaj Abdoulaye ci xanam yu baree bari lu ëpp ci ñooñu nag pour ñu gàttal wax ji rek da nga ciy déggee ne ñi sësoon ci Alaaji Abdoulaye bëri na lu leen gëlëmaloon lu leen tënkoon pour ñu mën a ràññi pour ñu mën a teel a ràññi bàyyi waaye Abibou bi Ñas moom yàlla def na may na ko chance boo xam ne loolu gàllankooru ko ku teel a ràññi bàyyi la loolu nag la naar ganaar bi joxoñ ci moom nag ku lu sayrin yudduni habibu doxkat bu ne jegeel ma abibu wa minhu la xaribu loolu rek la ñuy tënk ci moom di wane ne kooku lenn la ci kàngaam yi nga xam ne yàlla dajale woon na ko Baay maanaam Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu si jamono boobu ci sens boobu mayoon ko sens boobu ndax loolu du kum neex nga am ko cër la boo xam ne yàlla moo koy def ci nit ki kon kooku mooy ki sanc dëkk bi ci cosaan loolu loolu rek lañ ñuy tënk ci gàttal ci may Abibou Niass alhamdulilah ba léegi rek ñoo ngi toog ak suñu maire euh, maire Niass maire Niass ñoo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum leen nuyu nuyoo bu tedd di leen nuyu nuyoo di leen njukkal di leen delloo njukkal mënuma ko sax nag yàlla moo leen mën a delloo njukkal waaye man mënuma ko waaw yàlla mi mën njukkal yal na leen njukkal maa ngi nuyu daal nuyoo bu tedd di sant di gërëm may sant Cheikh Baye bu baax baax di ko gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla fu mu ci kaw mu gën a kawe mu gën a kawe yal na gën a kawe yal na ko yàlla kaweel yaara bi ci barke Seexu Tijaan barke alxuraan yàlla dimbali ko te jàppale ko yaara bi yàlla defal ko sutura defal ko mbooleem jullit ah, ah ma leen a fay fii ci kër Abibu moom man aw ma fi intermédiaire aw ma fi emukaay fii góor jigéen mag ak ñëpp ma jox sama cër ñëpp ma jox sama cër ñëpp ma def may seen kilifa ñëpp ma def may seen waajur waaw góor ñi sax. buñ doon sukk nuyoo sax dañuy sukk waaw buñ may nuyu kenn ku ne sa ñaari loxo nga may jox nga may jox boo may nuyu waaw ba tax na mënu leen a fay ñoom ñëpp góor jigéen ma ak ndaw ñoom ñëpp a xam ne maay seen kilifa li ma nekk jigéen sax mën naa nekk jigéen sax ñu ne kii jigéen la duñ ma faale waaye déedéet amul kenn ku ciy dugg ci toilette bi te waxuma ne ma ma faa bëgg a dugg waaw loolu ma di ko sante yàlla di leen ci gërëm nag waaw di leen ci sant dileen ci gërëm di leen ñaanal yàlla fépp fu bëgg egg yàlla nañ fa egg yàlla nañ uuf seen njaboot yi seen njaboot yi uuf leen bañ di leen weer ak a weeri yaara bi yàlla buñ sonn yàlla buñ sonle yàlla bu leen dara jafe fii ci kër Abibu laa wax góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla bu ci kenn jàq bu ci kenn jaaxle bu si kenn tiir bu si kenn gis lu muy ragal si barka Seexu Tijaan barka alquran maa di gërëm di leen sant mënuma ma leena fay sama xol bi fess fees ma wax nag ma wax waye suma ma mënoon dox tey jii dinaa wax li nga xamne li ku ko deg sa xol dina sedd waaw waaye ma wax. ngi ñoo ngi and ak tour rek ñi and ak euh, prince bu mag euh, ndjay Barham ndjay Barham tay ñew fekk la fi keur Abibu Cheikh bay sa sa ndey sa lepp mu tuddé la bëss ban yeg yeg la nga am ci bëss bi. waaw. Euh, auzu bi kalimaatillaahi taamaati min kulli saytaanin wahaamati wa min kulli aynin laamat sant nañ yàlla bu baax dafa def li gën a màgg si ñun ndax ku jël ab tànt war faa waxtaane juddu yonent bi sallallahu alayhi te ku ne xam na ne gàmmu yool bi ci nekk ak yiw bi ci nekk kenn xamul ni mu toll te baa ngi si boppam radiyallahu anhu wax nañu ne wa kullu man jaa bi seyxi lil mawlidil muxtaari ay karaamatan li xayri ay fa innahu kaman walli maanaam juddug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ñu kon ku la oo ci buntam ne la ñëwal bésam ma tudde ko kooku dafa wàccoog yow daal àndoo ci yàlla gi muy oote sama diggante ak moom tey laa xam ne dëgg la sëriñ bi moo ñu boole mooy bàyyi seexu si saw ñu ñaan yàlla yàggal ko fi dëgëral ko wéral ko te bam ñu takkee ba tey yàlla rek la ñu takkee te yàlla gi nga xamee ne nii moom la ñu takkee mhm. sant yàlla feeñ na ndax tey mënoon na mënoon nañoo nekk ci leneen mm-hmm. mënoon nañoo organiser leneen mm-hmm. te am nañ leen luñ organiser leneen mais loolu du loo xamee ne ni ci la ñu yar bëgg yàlla bëgg yónnante bi bëgg seexu tijaan bu pare xitmal ko moom ci loolu nag ci la nampatal seex baay ba mu ma ñëwee fekk si ko ci kër sëriñ bi mm. mu dalal ma moom yàllaa ma booleeg moom rek dama ñëw ci kër sëñ bi mu dalal ma yàlla boole ñu bu ñëpp ci daara ji koo wax day na njaay mu Cheikh Baye kon loolu sant naa yàlla vraiment daal Cheikh Baye Ndiaye baraam amatul lu mu ko deseel kontaan nañ lool ba fi kontaan te ndax sama xol bi moo sedd moo tax tey bi may ñëw jaar naa ci Baye nga siyaare ko mm. jaar ci maam El Hadj Abdoulaye siyaare ko ñaanal ko yàlla ndax teraanga ji ma defal mënatuma koo am. parce que nit jox na ma teraanga june waaye teraanga juddub yonent sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi koy soog a c'est la première fois nit tudde ma gàmmu te ki ma àndat ci yàlla moo ko def kon suñu ànd dëgg la dëgg fa yàlla daal hmm. euh, xol bi sedd na hmm. te itam delloo na ma ci lu baree baree baree bare te it sas na ma war na ma ne ma war ngaa góorlu ci yàlla war na ma ne ma am nga lu lay xaar ci yàlla hmm. kon yokkal yitte ndax boo demee ba ñu lay tuddee juddu yónnent rek sallallahu alayhi wa pour man lu bari war na laa ñoom parce que nag mënoon naa ko defe ci feneen waaye mu wan ma ne fu du foofu fii la kon teg na ma ci yoon kon daal sant naa ko vraiment gërëm naa ko euh, kontaan naa wax dëgg fa yàlla ah, sama xol sedd na daal waaw macha allah daal yéen Cheikh daal mu ngi noonu mm. ah ñoo ko gisandoo mm. euh, xanaa di gën a di ko gën a ñaaral yàlla ñaan tànt bii muy samp yal na dem ba doon ay tànt yal na dem ba samp ay ñeneen ñuy samp ay tànt loolu yàlla mën na ko de te daaw ñëw nañ fi ren yàlla dimbali nañ ñu fekk ko damaa wax sama soxna ne ko ren bi ñu toogee ba ci kanam ma ne ko li sama xaatir di yëg nii bu dee dëgg la Cheikh Baye dina ma tudde gàmmam gi ren ñu toog ci ay weer mu oma ne ma man la yow laa tudde gàmm gi ma ne ko loolu loolu yëgoon naa ko ci sama yaram te tànt bi ma gis daaw ak bii ma gis nii ren yokkute am na kon dañuy sant yàlla di ko ñaan mu dolli ndax lum dolli rek bëgg nañ waaye yàlla nañ ko fekk déwén ak wér ak kàttan ak mën-mën ak yokkute ak saay rek baati ndax yokkute moom am na moom loolu moom gis nañ ko ñun te ñu ngi ñaan yàlla mu yokk ñaan yàlla dëgëral ko wéral ko làq ko xaar yàlla na xat bi yàlla na ko yàlla sàmm aar ko musal ko ba lépp luy gaar ndaw ci yoonu yàlla yàlla na ko yàlla teggil ci barkeb suñ sëriñ mooy bàyyi seexu si sax lii ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko ñun mboolem ku fi ñëw yàlla yàlla defal la loolu wax dëgg daal daanaka lii lañ amoon ci kàddu kàddu yi sadd sant ak ngërëm ndax ak cawarte daal wax dëgg fa yàlla waaw vraiment daal kontaan nañ daal waaw macha allah daal. yes Omar yéegee Cheikh Baye dalaa parrainé bés bi ban yéeg lañ ci am. bisimilah rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin rahmaani rahiim maliki yawmi diin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqiim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxduubi alayhim wala daalliin amin waaw gannaaw bi ñu sant yàlla junni si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu waajur ak di gërëm suñu sëriñ waa di am contentement beneen yoon parce que comme li ñu faral di wax rek gannaaw bi ñu ne ñu wax gannaaw bi ñu yëgee ne pare ne nañ bis bi mais dañuy sant yàlla gannaaw bu ñu yàlla defee bis bi fekkaat ñu fi ndax comme li ñuy faral di wax rek dafa mënut a ñàkk ñuy bind parrain rek mais bis bi dépensé nañ ci lool parce que ci mais borom te li may wax yaakaar naa ne am nañu ko xam bëri na donc kon ñun duñ parrain si bis bi comme liñ koy faral di waxé mais ñu mom bis bi ci lañ bok ndax liggéeyal yalla mom am na mais amul borom képp ko xam na ngay liggéeyal yalla rek da nga am fay ak yalla te manam tour yi tur tur tur mën naa jeex mais fay gu la yalla di fay du jeex donc kon ñun liñ liñ def si bis bi dañ koy def pour liggéeyal yàlla ñi am ci fierté am ci gëm-gëm bu baax nak parce que defuñ ko pour ngestal defuñ ko pour woné wo defuñ ko pour dara te yaakar na ñi ñi comme Cheikh Baye mënuñ ko ñak tudd mom du bëgg lool sax waye comme mom dafa noté da fay dara jalé à chaque fois remet si bés bi bok mu bok ci bés bi mais mom xam né ne bi man duma ci pare te ñi seq bés bi ak ñi né si dëkk bi xamnañ lool xamnañ lool parce que man defuma lu toll noonu sax waaw parce que nag boo gisee li tax loolu yëpp ñu koy préciser mbir moo gis dafa am commencement peut-être nag damaa gëm ne commencement ba dafa dëgëroon fondement ba parce que fondement bi moo indi yëf yi fii waxtu wu nekk nag ñun ñu ngi siy feer di sant yàlla xam nga kiy def bis sax di communiquer ak yow si date bi ne la bis bi bu baaxee ma fixé ko bis bi bu baaxee ma def annoncement yi kon bis boobu doo nekkoo ci pare kon bis bi mën naa wax ne bu fekkente ne bu fekkee ñaari nit ñoo koy organiser chaque année Cheikh Baye gannaaw ah, banda Cheikh Baye amul keneen koo xamante gën nañu see xam si si bés bi dem na ba ci date beeg programme yeeg fu mu toll ak fu mu ba si fu ñu jugee sax dara ëmpuñu si kon loolu sant yàlla la ak kóolite la ak kóllëre la te yaakaar naa ne yàlla bu mu jeex ci barke yonent bi vraiment daal ñun ñu koy am kontaan bu baax di dëggal siñ ànd ak moom waxtu bu nekk te di feddale siñ colère ci bés bi xam ne bés bi fu ñu mënti fekk dañ koy dañu dagg si ñi te ñëw parce que moom am na lu ma ko expliqué woon sax si wàccaay bi ma ne ko fekkoon na ma de ma nekk ci wàccaayu tukki ba defoon préparation ba pare waaye bés bi comme yàlla dana mu fekk ma Sénégal soobee yàlla yonent yi du nekk loo xam dama koy wute nak jam sabab lu la am yalla mom moy def gis nga ko tey bokku nañ ci fekke nañ ko fekki wuñ ko fekke nañ ko si ben anam moy fekk nañ ñuy dund muy sante yalla gu reey mais fekk nañ timit suñu xol amoon di yéene toog ngeen fekk ñu fofu si base bi parce que chaque année bu jot ku xam programme bi daf ñuy daan gis fofu kon lool côté bobu mo waaw mën a waxee fekk fekke wuñ ko si mais sante yalla rek waaw waaye ñun tuuti nañ ba nekk ay influenceur wax dëgg fa yàlla ñu lay ziar nag bu baax a baax a baax a baax a baax. dañ la parrainé bés bi ban yëg-yëg la nga ci am. ah xol bi sedd lool mboolem kuy sama mbokkam ñu seen xolam sedd depuis ñu ma parrainé bés bi ba léegi si sama téléphone bi fayut képp koo xam ne kii maa ngi sa numéro nga yore sama numéro oo nga ndokkeel ma waaw weer wi yëpp dañ ma ko oo di ma ndokkeel waaw di ma jërëjëfal mu neex leen. ñu gërëm kër Abibu ñoom it sant kër Abibu waaw ndax nit amul lu mu fu mu dëkk amul lu may mbokkam waaw man xam naa fiñ ma teg suufee luñ ma bés bi moom neex na ma lool neex sama doom yi sama njaboot gi lool neex sama mbokk ña seen yëpp neex samay nijaay neex samay yaay neex ñëpp daal ñépp daal la neex waaw neex na daal ñëpp sama am di jàmm yi ma dëkk Dakar sax ñëpp affaire bi neex na leen waaw képp ko ci gis rek yaa ngi may o téléphone di ma di ma félicité waaw. Sidi Bamba ma na toog ak sa yaay ju baax yi te bu ñu xam ne moom mooy kan nan la ñuy def. mooy kat xajul si xajul si seede. waaw mais na tënkal non na tënkal ñu ko rek na tënkal ñu ko rek. waaw kii moom mooy kii mooy Khady Niass. Mhm. di sunu yaay. dëgg la maanaam maam mag bu jigéen. di mhm. sunu yaay. ndeysaan di Ndeye Fatou bi tey. Mhm. ak dafa am bi tey. kii sama papa tuddee topp ci mu ngi fi. ma ñëw man. mu hmm. tuddee ma papaam. dëgg la Aliou Marème. Aliou Marème Aliou Marème Niass. waaw loolu moom li ma ciy tontu moom mooy. Hmm. moom mooy hmm. Khady Niass. nag moom moo ma jur man. tuddee ma papaam. Aliou Marème Niass. waaye damaa am mbokku jigéen. dëgg la suñu taal. di bi tey. mooy suñu yaay ñun. dëgg la dem ba nekk mag. soo nga xam ne kii mooy suñu yaay. moom la wax yaay. ndax moom ak ni ñu yoree ak ni ñu ni ñoo am tamit mag bu góor. Abdou Fafa Biteye. Euh, ñu koy wax Pape Biteye. Abdou Fafa Biteye nag sama papa tuddee ko bu mu dem papaam. man ma ñëw. Baba la mu topp si man ak El Hadj Omar Kane. Mm-hmm. waaw ñi nga xamante ne sax ñoo ñoo ñoo jiitu. Mm-hmm. mun nañ ci lim. pa Pa Amadou mun nañ ci lim tamit tayib di ñoo xamante ne ci njaboot gi lañ bokkoon waaye dafa def yàlla dafa def ñu teel a seen borom hmm. ñu leen ñaanal foofu ñu tëdd suñu borom gën a yokk yërmande seen kaw hmm. waaw mais kii moom bu ma la doon wax ci moom hmm. maanaam lépp loo xamante ne dañ koy gis ci sama jëmm ji ba nit ñi di wax ay dafa baax ak wala dafa am lu mu mel ak wala dafa am lu muy bañ ak wala dafa dëgg ak yooyu mën naa ne weccet bi poussière bi si moom laa ko jëlee maanaam moom loolu ci moom la nekk. Hmm. poussière bi poussière bi la ma jox noonu. Hmm. poussière bi moo tax ñuy gis ci man di seen ci man lu tax ñu naan kii bañkat la. Hmm. ndax yaay la joo xamante ne yaay ju mat yaay la. dëgg la koñ bu mu dëkk. kenn du ko fa xam. dëgg la kenn du ko fa xam mooy nekkul ñëpp dinañ ko ñëpp a xam de. kenn du ko fa xam mooy kenn du ko dégg ci dara. du ñu liggéey. ñun bi caabi bi nekk ay xale. école bu ñu musaan dem. maanaam ku ñu musaan yu yor comme professeur hmm. sama yaay bu jugaan ay gambi ay farafeñe hmm. da lay indil ay diwtiir ay géej maanaam yaay boo xamante ne dafa topp day topp doomam dëgg la waaw dóor ba nii bëgg a dee nag dëgg la parce que ci nii hmm. ci jub jub dara daraan wax benn wax ne yëre bi nga xamante ne dama koo sol in ñëw fii Dakar du ko si mukk loolu dañ maa teg mbir na bàyyi. di ma denc. maanaam voilà te yàlla na yéex. loolu moom jikko jooju jikko jooju mu yor. moom la ñuy yaree biir Ndakaaru. def si ñun maanaam loolu ak loolu. daj hmm. si ñun coono yu méttee métti métti. Hmm. maanaam bu ñu la wax ci moom. Hmm. maanaam duñ fa jóg. mais maanaam boo bëggee gis yaay boo xamante ne yaay bu exemplaire la. yaay bu sonn ci doom. yaay bu bëgg doom yaay bu ñeme njaboot. mu ngi nii. dëgg lu ne gaañu de. dëgg la waaye mosuñu ñee suñu morom. dëgg ba ni ñuy wax ak yow. Hmm. même ñi ñuy àndal. Hmm. ngay ministre wala ngay député wala ngay joueur wala ngay borom xaalis wala ngay ku siiw. Hmm. kenn yabuñu. dëgg te loolu moom moo ko def si ñun. dëgg la ñoo teel a maanaam a maanaam daf ñu teel a yor. ba ñu xam ne ñun ay buur lañ. dëgg la loolu nag ku ko def ci yow. wax dëgg fa yàlla amoo amoo loo koy fay. dëgg la kii nag moom mënuñu wax ci moom. dëgg fa yàlla ndax. comme lim la wax rek. Hmm. waaw nit mom bu wax ci yaayam. Hmm. dañ nan mom rek mo bax yaay. dëgg la waaw loolu moo tax wax ci mom day xawa jafé trop. dëgg la day xawa jafé trop hmm. mais lepp lu ñuy gis ci ñun. mu nuru lu bax lepp lu ñuy gis ñun mu nuru lu bax pëndax bi. dëgg la ci mom lañ ko jëlé alhamdulilah léegi nag mu am lu nekk ci ndey Fatou. am lu nekk ci pa am lu nekk ci baaw lamin am lu nekk ci as lolou yépp ay pëndax la. te bok te nekkul ci man. dëgg la waaw te loolu yëpp mu ngi ci jëmmam ji tok nak fess del deug la fess del dell waaw taxaw mën naa wax ne mën naa wax ne lépp ci moom lañ ko jëlee daal. dëgg la suñu yaay mooy bunt boobu noonu. di sant yàlla rek ci ndokkeel suñu yaay bi nga xam ne moom lañ ko tuddee. dëgg la muy mhm. guddi gi yëpp li ma ci gën a neex mooy loolu. dëgg la loolu moom xam naa boo ma ci laajul sax. Mhm. danaa sawar ci wax ci. dëgg la mhm. yàlla ci boppam dafa def. mboolem seti Habibou yi. Habibou Niass yi mu ma doon laaj borom dëkk bi. dëgg la. moom moo ci mag ci sëtëb doom bu góor dëgg bu doom bu góor jut hmm. maire Niass mooy taaw dëgg ci loolu nag hmm. mu am beneen xikma boo xam ne da cee am hmm. bàyyam tuddee ko yaayu daaraam yaayu mu doon jàngee si ndukkumaan da ko yore woon daara doon ko toppatoo doon ko dimbali nekk yaayam Xadi Sall la ko tuddee kon maire Niass ñu ko tuddee bés bi loolu tur yu jiitu na dëgg la ndax buñ ne yaayu daara la mhm. ci baayam te baayam nekk kilifa nga xam ne waxuma karabi bu jii daara yii de mhm. daaraay karabi bu de waaye daara bu tàkk ci commune bii gannaaw gum demee jàngi ndukumaan ñëw la tàkk dëgg la bu ne damaa toog sama ruq sama kër rek wax ko déedéet conseil régional Kaolack oustaz ñu fal ko président man maa demaloon karabi bu mhm. oustaz Damka ñu ko président daara yi laa yëkkati kaddu gii gannaaw bu mu demee ndukumaan jàngi ay rakam fekk ko fa. mu wat mom mi di ay maire ñass ci la mbooleem daara li upp xaliban ci commune bi ñu dëkkee. ci la tak gannaaw gi. nga xam na da ngay wax ne dëkk bo dem. ci dëkk yi li upp manam arab fay faral di waxe noonu. bo peesee li upp ci dëkk yi ñu dëkkoo. dëkk bo dem daara jëfa ne bu jangé wut karabi bu rek jangé na ci ku jangé karabi to lool loolu mi ngi am gannaaw bu goor gi jógee ko kër ma kanji ci señ daara Ousmane Ndiaye laxas dugg ci train bi dem fukki fan ak juroom lettre bi dellusi wat ci goor gi di Abibou Niass ñu ne alaaji Mamadou Niass taawub Abibou Niass ma nga katcho di baram nga xamne ma ngay nako fukki hatak lu top mhm. fekk ko ak Omar Kata ku ñëw Omar Kata ñom ñu fekk ko mhm. fekk ko ndukumaan ñi ngi ko fekki won ci papaay oustaz jangan goor dëgg la gi Saliou Ka saliw Ka moy ki len jangal gannaaw buñ dellusee fi nak la fi alcorane takkat gannaaw ci tunu nga waaw dekk bo dem ci dekk yi mhm. daara joo fa fekk ñi ca ëpp bu jàngee wut karaw yi bu ñes ku jàngee karaw yi bu ñes moo ko jàngal pour ma wax la pour jamono dëgg la loolu sant yàlla bu rëy la teg mère Niass nday daaraay góor boobu lañ ko tuddee dëgg la kon ñu ngi sant yàlla ci loolu bi ko Seex Baay tuddee loolu lu ma gën a neex ci bés bi loolu tuddee gi mu ko tuddee mhm. lu am solo la mhm. jox na ko cëram jox na ko lu mu xelloo mhm. du ne dañ ko koo tuddee pour lenn dañ ko tuddee pour ne moo moo moo ko xelloo cër moo ko moom dëgg la gën ko taaru pour ñu téye ko kenn dafa jaaru sax nag toujours turam moom jiitu ci bés bii nañ ndax mooy yaayam ci lépp ci saahir gi ak ci baatin dëgg la lu ma gën a neex ci bés bi lii la lii moom ma gën a neex ci bés maanaam bu ma doon am benn ngant mhm. bés bi moom bokk ci ngir bi ma déggee ni ñu ko annoncé maire ñu ngi sant yàlla beneen di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla lépp luñ fi ñaan yàlla ko yàlla nangu yàlla na yàlla yàggal ko fi yokk fan yi yokk wér yi jàngal ñu mboolem damu dam yàlla mën na ko am na ko yàlla saa ci baatu bu ñu buntu xéewal yi yàlla mën na ko am na ko yàlla ñu ko yàlla defal ci barke guddi gi barke tubluwaay bi barke alquran barke mboolem mag ñu baax yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu jaar di daal loolu tënk la rek pour ma wax la ci anam googu allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa mbégte mbégte kontante maanaam ndax xam nga loo moom ñu jox la ko dafa neex waaw sama yaay tey jii li ñu ko tuddee nii mën nañ jël kër bu ñas ñi fi nekk ñu tuddee leen ko kuñ ko tuddee da lay jàpp parce que dëkk bi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo mel noonu ñoo dañoo rëy judd ñoom ñëpp fi mu ne nii koo fi tuddee woon bis bi maanaam da boo ko toppee da ngay xam ne kii war nañ ko tuddee waaw moom moom tey jii bi ñu tuddee bis bi dafa tombee ci zaahir sax ñun ñu tuddee ñu benn final fee ci terrain gaal gi la 16 samedi bii la waroon am mais dañ ma wo bi may dem ñu ne ma dañ ko mujjé fofu ba 24 ma leen maa lay ma lay bagage parce que bobu dama leen wax carrément ni bis bobu du fu fa mu ñëw dama yónnee délégation mu dem fofu ma dem sama bisu yaay ndax ndax bis li bis bi day day raw bis bee ñaar yoon donte lé sport la mais li diiné la waaw bu fekkoon budul bu fekkon sama yaay mo mi tuddé final manam mm. final football man mo wara dem ci ay jang damay bàyyi jang ya ñëw ci football bi bu ba football bi farata lay doon ndax liñ ko tuddé sama yaay waaw moo tax bis bi buñ loo waxee fii la ñu toll wala maanaam maanaam ñi la ñu neexee rek dañu dañu juum waaw loo xalaat fu mbégte yem bi bis bi biñ ñu ko biñ ñu ko yëgalee mbégte bi romb na foofu wax dëgg fa yàlla Cheikh Baye moom xamuñu fayam ndax suñu doomu ndey la yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn baay waaw ñoom ñoo bokk lépp lii mu def nii mooy dafa delloo buum ci booy booy rek dafa def waaw dafa def dafa def wareefam te nit tamit maanaam li ñu naan maanaam euh, euh, maanaam kuñu kuñu kuñu wo kuñu wo ko la wala kuñu xuri ñu xuri la wa mom daf ñu xuri ah, daf ñu xuri dal tay sa yi man gaw ma ni ba xam ñun mën wa mais ñun mënuñ ko xuri parce que fi ñu wo ko mo sori xam bu doon wo ko mu xuri la mais mom fi daf ñoo ko mais mënuñu ko xuri ndax fi ñu wo ko dafa sori ba amatu ñu wu mën a xuri <laughs> c'est vrai lolu ñu def mo tax diko ñaanal tawfiix nak aw ci yoon bi mu nekk ni hmm. ak ci li mu yëngatu yalla ko suñu borom musal si cat defal ko tawféex moo xam lu mu ci bëgg suñu borom nag ko si defal defal ko xéwal gu bari man nag bu may ñaanal nit moom xaalis laa koy ñaanal waaw xaalis kese parce que li ma koy ñaanal xaalis mooy <laughs> waaw day waaw dafa baax ci gor waaw surtout koo xam ne dafay dafa yëngu nekk ndaw di yëngu ci ci ci ci Cheikh Baye boo ko xoolee ñu ñoo ko mag foofu mais boo tey ji bu ñu doon dem fenn ñeme nañ ko jiital comme suñu kilifa loolu li koy def mooy maanaam dafa teel a dund diine waaw diine mooy dëgg ku la wax loolu da lay nax ah, moom ci li mu nekk nii muy dëgg gu wér ah, moo tax moom dañ ko ciy ñaana suñu borom gën ko cee gën ko cee sàmm waaw ah, ndax diine sax da nga ciy nekk sax cat di la ci topp waaw ndax léeg-léeg nit dina dund diine maanaam sa sa kilifa di soñjee ci wàllu islam di wax nga japp ne yow ña nek ci ba mm. wala ñay dem ca soirée ya lay waxal fekk yow lay waxal yaangi dund yalla waye ci bir yalla gi mm. yaangi ci am des fois ay bëgg-bëgg yo xamanteni ya ni yalla bëgge bëggeewu ko noonu duko yàlla du ko bëggee noonu yow yaangi dund yalla mais ci tang ci top na la ba reey nga ci bir yalla gi ngay dund wala tamit waaw wala wala nga ñak xam tamit ci bir yalla gi ngay dund waaw ba do xam sax foko wara defé foko wara defé mom nak xalé bu yaru la mm. xalé bu dal la xalé bu tey la xalé bu bëgg limi def la dañ koy ñaanal suñu borom nak manam musul ko ci cat pare yokk yokk ay affaire am ay mbiram zaayaram. alhamdulilah ba léegi rek euh, xam ko ne gàmm organisation gàmm dafa métti gàmm gi nekk si cinquième édition comme euh, maanaam ku ko organisé Cheikh Baye Guèye bii nekk cinquième édition am nee na yaa ko jàngal alxuraan a ba jadda ba alif laam mim zaalikal kitaab tey bu ñu bëggoon xam sa ndongo jooju moom mooy kan comme yaay imaamam. waaw ñu ngi sant yàlla beneen yoon ci loolu. waaw yàlla dogal na. Cheikh Baye Gueye maa ko dalal ba sin mi mara ba alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin mu jàng ko ci njàngin woo xam ne jamono boobu jàng jafe na waaye mu goreel ko ci anam goo xam ne tamit anam wu jafe la ndax jàngal nañ ko ko ba mokkal ko ci tari ko ci fukki si bëgg juróom fukki si bëgg juróom ci ñe ñeenti jataay kon loolu lu muy tegtale mooy yegg na ci dayob mokkal alxuraan ci anam woo xam ne nag njàngeen wu jafe la ndax booba pour xale bu mel ni moom ci jamono yooyu pour mu tënku ci jàng ci daara ba jàng ba mokkal alxuraan lu jafe la waaye yàlla def na moom ñu bëree moom ci xanam googu noonu ba def alxuraan ci dënam bi mu goreel ko goreel bu rafet loolu su ma ci taxawee seetlu rek exemple ba ma ciy joxe mooy bi mu fi jugee koy dem école mu amee Nazir bi yàlla dogal na diitab li mu nekk ci école bi di jàng mosul génn cinq premières yi du ci benn compo nag confirmation boobu loolu dafa tegtaleen ne primaire am bu njëkk bu baax na loolu moom école bi mu demoon moo confirmer njàngam ci alxuraanam waaw loolu moom la ñuy taxaw foofu ci Cheikh Baye Guèye ci loolu nag ci la topp njàng ndax njàng mooy yóbbu nit ci xanam gune ne ndax alxuraan ji borom xam-xam dañuy waxee ne ci la ñu xamee alxuraan yi dëgg-dëgg ji wala ñu ne Baye dafay wax ne alxuraan ji moom may jàngal alxuraan yi dëgg-dëgg ji kon loolu lenn la ci li ko yóbbu ci gannaaw gi bi ko góor gi yóbbee muy jàng xam-xam ma tànnal ko darsu bi nga xam ne moom la bàyyi tànn ci Medina buñ ne darsu bi bàyyi tànn mooy darsu Cheikh Ibrahima Wade mooy Baye Wade darsu boobu mooy darsu Serigne Aliou darsu Serigne mooy darsu Baye Niass majlisu Baye Niass mooy majlisu Serigne Aliou bi tey mooy majlisu Baye bi ci Medina Baye ñu tànn ko dugal ko foofu gannaaw buñ xamee ne njàng mu am qualité moo fa ne waaye ànd ak loolu yëpp nag mu góorgóorlu fa ba keroog bi nga xamee ne yàlla dogal na mu jugee koo fa sëriñ bi daf koy laajte ba taalibi boo dajee ci kër gi dalay wax ne lu jafe la Cheikh Baye am mooy sëriñ bi day ana Cheikh Baye Gueye ana Cheikh Baye Gueye te kon buñ ne Cheikh Ibrahima Wade ci jàng jàngale kum dem ba di la nemmeeku li muy tegtal rek mooy gis na ci yow aw nja aw njàng loolu moom confirmation la ci ne jàmbaar la kon loolu tamit ay duñ def lu dul ñaanal ko ci yàlla yàlla def ci moom tawfiq ak taysir na jaagri daal bi jaay si wu ñu wàllum loolu la ñuy taxaw foofu. ci lenn ci liñ mën a joxe exemple ci Cheikh baay Guèye. Cheikh Baye Guèye moom mu taxawal bés bi moom mooy kan tey maanaam pour na leeral jaamu yàlla ñuy seetaan. waa Cheikh baay moom mooy ki nga xamante ni borom xol bi yaatu bi laa koy wooye mhm. ndax li tax ma koy wooyee borom xol bu yaatu bi mooy. Mhm. boo xamee ndaje. Mhm. woote. gone yi ñëw wuyu si la rek. sa xol yaat mais bu nekkee da ngaa ay magi kese ñëw. dañ naan kii kat mag ñi ñëw ndax kóllëre ay baayam lañ mais bu gone ñëwee mm. gone yi dañoo ñëw parce que da ngaa dëkk ak ñoom ci jàmm mm. da ngaa yaatal sa xol ci ñoom moo tax ñi ñeme la pour mën a ñëw sa bés te boo seetloo ay gone kese moo ñu wër ñoo ñu mag ñaa ngi ci biit ñi ngi defar mi ngi normal parce que ñoom am na lu ñu séddoo mm. mais gone tey bu ma fi fii na leen saisi ñi tas ko duñ ci am sax taxaw te lool li ko waral mooy Cheikh Baye moo leen ñemeloo boppam moo tax maanaam ñi ngi koy ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla yéen tamit yàlla defal ñu tawfeex ak taysiir yàlla nañ ko yàgg def ay xati xati xat bu déwénee bu ñu ñëw yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué yàlla bu kenn manqué yàlla nañ ñëw déwén ci wér yàlla nañ ñëw déwén ci wér yàlla nañ ñëw déwén ci wér yéen ñi nga xamante ni yéen yéen waaye askan wi TV bu déwénee bu ngeen di ñëw yàlla na yàlla may ay matériel yu dëpp ak jamono matériel yoo xamante ni nii dara du ci manqué ñu ngi leen di ñaanal lool mu nekk ñaanal xaas yàlla na ko bàyyi nangu yàlla na leen ko bàyyi seexu defal wax dëgg yàlla am kontaan nañ te dara commencé gul buñ ne naan programme bi ndax mooy wane ne bu ko programme bi dëgg-dëgg commencé affaire bi dina nice dina normal te ñëpp danañ ko respect ndax suba ba léegi mi ngi normal te mënut a normal ba heure bi ngoon jot mu yàqu kon séentuñ ci yàqu te du yàqu incha allah ñi ngi ñaanal yàlla ñëpp mm-hmm. di ñaanal yàlla suñu yaay booy mm-hmm. yàlla defal leen jàmm yàlla may leen tawfeex ak taysiir mm-hmm. yàlla def ñu doom yi nga xamante ñoo fi nekk yàlla may ñu ak koom bañ mën leen muural kaalay mag muural ko suñ papa yi muural ko mboolem ku ci bëgg yaara bi ci barke Cheikh Tidiane ci barke Baye Niass ci barke mboolem wàllu yàlla yi barke Baye Cheikh Sissoko mi nga ngi koy sant di eh, wax ji rek lañ bëgg a ñëw bi ñëpp ñoo ñuy laaj ndax dafa am message bari bëri ndax te ñu bëri ñoo ngi may woo di ma laaj kan mooy Cheikh si Sissoko te yaay Barham da ngaa placé pour wax si dañoo bëggoon xam kan mooy sëriñ bi si Sissoko mooy kan waaw tey euh, laaj na ma góor goo xam ne neex naa xam waaye jafe naa xam ndax ñun ñi nga xam ne ñooy ay taalib ñooy ay taalibeem te bëgg koo doon rek pour ñu sëyru ko moom dafa jafe ndax Maodo sëriñ boo xam ne da ngay ñëw këram fekk ko muy fubal nii sax ak ay doomam wala ak ay xaleem xadaram boo fa ñëwoon tey mu toog di xadara comme taalibe yi doo mën a xàmmee ci biir kan mooy sëriñ bi loolu nag mooy oyof te gis nga oyof maqaama bu waaye am ci yàlla ci la ko jële maanaam gis nga garab ci boppam xob gi oyof gum oyof moo tax bu waddee ci suuf fu ne mën na faa dem waaye gis nga diis sonal borom ak rëy te loolu gisuñ ko ci moom yàlla nag ji nga xam ne moo tax ñuy ñëw ci moom itam sant nañ yàlla bi ñëwee ci moom ndax sëriñ la boo xam ne bu fekkee yàlla rek nga bëgg dina la ko jox dina la ko jox bu nga doyal wax dëgg fa yàlla lu ne la ñuy mën a wax waaye lu dul ne sëriñ bii yàlla ji taalibi ji am ci uut ci moom am na ko te nangu da koo joxe waaye ànd na ak yéwén ak laabir dina la woo dina la nemmeeku waaye góor la daal goo xam ne bu ñu la doon wax ci gàttal lépp mu gàtt te leer rek mooy ku bëgg baay waxtaan la waaye maxtaar ka mi nga xam ne ñu ngi ñaanal yàlla yàggal ko fi dëgëral ko wéral ko seede bi gën a neex te man xam naa ne neex na ko ci moom gën a gàtt te gën a neex mooy bëgg na Baye Maxtaar te Baye Maxtaar nag bëgg ko rek texe la bëgg ko rek góor yàlla moo koy def ndax moo doon nit koo xam ne moom Baye Seexu gis nga cër boo ko amee ci yàlla dëgg li Baye Nges di wax ne gis nga man di dëgg dëgg dëgg dëgg aarif bi day mandi ba nga xamee ne nii boo ko gisee da ngay ne kii dara newut ci moom mandi googu nag dafa nekk ci moom ba nga xamee ne nii tey ay taalibeem koo ci gis sax ñi ñu ngi wékkoo kuru sol ay laaf da nga yaakaar ne dara newut ci ñoom waaye day def ci yow yàlla wala àddina xamal la ne la oyof mooy àddina li ñu gën a neex ci moom mooy oyof gi te loolu sant yàlla la bu ko neexoon mu nekk comme sëriñ boo xamee ne nii day tëju fii di jaay ay taalibeem affaire mais waaw sëriñ ay nekk fii dugg lu kenn xamul waaye sëriñ la boo xam ne hmm. dangay ñëw soxla ci moom yàlla mu jox la ko ba nga doyal ba nga xam ne kii hmm. jox na ma yàlla kii naxantewut ak man kon loolu wax dëgg fa yàlla ku bëgg Seexu Tijaan la ñun am na lu ñu yàlla may xam nañ bi avant ñuy ñëw ci moom ak biñ ñëwee ci moom tey luñ am ci Seexu Tijaan wala mbëggeel gi moo ñu ko roose ndax nag ab jaaykatu parfum boo doon ànd ak moom chaque jour bu yàggee sax ngay xeeñ parfum te doo ko jaay lool mooy wilaya maanaam gis nga wilaya gi nekk ci moom te mooy bëgg seexu tijaan gi maanaam boo koy moom boo nekkee moom force danga koy bëgg parce que daf la koy roose waaye loolu nag xam nañ ne lu yàgg la bëggam seexu tijaan lu yàgg la te wane na ko ci ay taalibeem te def na ko ci ñoom kon loolu rek buñ ko ci doon sant rek doy na ndax ki fexe ba bëgg loola Seexu Tijaan rek ko wàccoo na yow ci yàlla ndax Seexu moo doon nit koo xamee ne nii kenn xamu ko kon bu ñu ko bëgg looxee rek loolu sant nañ ci yàlla te loolu moo ñu andi ba ñun ñu buñ koy bëgg moom bàyyi seexu dañuy dem ba Seexu Tijaan la ñuy gisati ci kon vraiment sëriñ la boo xam ne mm. am na yàlla te mu ngi koy joxe te mm. maa ngi waxaale ne ku ko soxla ku bëgg yàlla te di ko wóor maa lay invité nga ñëw seet si kii kafut fowut te day liggéey te day liggéeyal Baye Makhtar te loolu moom ñun ñëpp xam nañ ko barki dem rek la jógee Dakar def fa loo xamee ne nii ñëpp a koy wane kon vraiment sëriñ la boo xam ne daal euh, macha allah ku bëgg Baye Makhtar Ka la ku nangu la te it ku xiir ay taalibam ci jaamu yàlla la mm. waaye ku leen di bëggloo Seexu Tijaan waaye ku leen di bëggloo xam-xam bi kon mu ngi do sëriñ boo xam ne daal dañ koy sant ñun di ko gërëm ndax lii yëpp bu amee tey moom la bu fekkoon ne dañoo ñëw mu ñuy teg leneen lii yëpp mën naa bañ a am kon bu ñu demee tey ba lii am ci mbaaxam la ak boole gu muy boole ay taalibe te li ma jaaxal mooy ñi war a ànd rek lay boole man bi may ñëw këram damaa ñëw fekk fa ku ñuy wax sëñ Babacar Diassé moom ba tey ñu ngi ànd. jaase mu baax mi jaase mu baax mi. borom Dakar. walaay borom damaa ñëw. fekk ko fa. bés bi ma ñëwee. moom ak Cheikh Baye mii borom gàmmu gi. dëgg la moo tax nga xam ne gis nga yàlla kese bu la taxee jóg. il faut nga am ci njëriñal yàlla. bés bi ma ñëwee ma boole ma ak moom. Hmm. moom jaase. loolu dem nañ ba jaase tey man mii di wax ak yow sama soxna si ma takk jaase tax ma xam ko ba takk ko. tey gàmmu ngi ñu tudd ma ko Cheikh a tax kon ñaar ñii mu boole woon ma kon mm. xam nga ne loolu yàlla dëgg feeñ na fi ndax yàlla moo taxoon mm. kon sëriñ la boo xam te xàmmee bu ràññee tey boole ñaan ñi war a ànd loolu nag dama ci sayru lu bari mm. kon ñi muy boole war nañ ànd kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla nag yàlla musal ko muccal ko yàlla sàmm ko aar ko làq ko fu yàq eggut ku koy xaar ci yàq ab liggéeyam yàlla boo ko nettali ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak dëgër ak wér la kontaan nañ ci moom de mu yëg ko mu ñàkk ko yëg kontaan nañ ci moom moom Baye Cheikhou te xol yi sedd na ndax def na ci yàlla jiñ doon xaar ci moom wax dëgg fa yàlla daal su ma doon wax ci moom mën naa dem ba bët set mais dama la koy tënkal le xamal ne ne la sëriñ la sëriñ la waaye sëriñ la waaw lii daal moom mën naa la ko cee waxagum li ci des moom ñu denc ko rek ba ci kanam incha allahu rabi. kon neexut a dëgg la neexut a xam man euh, foofu daal li ma ci xam ci li ma mën a wax loo xam jàpp naa ne bu ma ko waxee du ma juum hmm. mooy Cheikh Baye Cissokho mooy nit koo xamante ni nit ñëpp la foofu rek laa yem Cheikh Baye Cissokho hmm. nit ñëpp la foofu laa mën a yem mais yow tey mu est-ce que mën nañ xam Cheikh Baye Cissokho lu mu la defal loolu ak fu mu la ak fu mu la jëlee ak fu mu la indi Cheikh Baye Cissokho moo ma jëlee ci caaxaan xandi hmm. ma ci dëgg xandi ma ci gëm yàlla xandi ma itim ci bëgg yàlla xamal ma man maay kan parce que ba may jugee ko tay ba ñeseen di dem ci moom boobu damaa réeroon damaa newoon ci néeg bu lëndëm moom fa jëlee taalal ma lamp bi hmm. wan ma fa may toog ak na ma fa war a toogee hmm. alhamdulilah sant naa bu baax a baax sant naa bu baax a baax sant naa bu baax a baax maa ngi koy ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal kattan gum mën a toogee ak njaboot gi loolu moom bu xamee rek hmm. ñëpp danañ xam euh, kan mooy baa si Cissokho dëgg-dëgg mais man mi nga xam ne taaliba laa instant bi mënu ma koo décrire ndax lu bëri lu ma war a xam ci moom xam naa ne xamaguma ko waaye daal li ma a wax mooy. Hmm. nit ñëpp la dëgg la loolu laa mën a wax. bi jeex na ndax olof Ndiaye nee na booy laaj da ngay laaj ko xam maanaam li nga wax ni yëpp lépp leer na mais imaam damaa ñëw si dëkk bi gis ay ndaw rek topp faydu bi comme dañ ne imaam imaam mooy jàngalekat imaam moom moom mooy joxe message imaam tey maanaam ban kàddu la ngay dénk ndaw ñi topp faydu bi fii si dëkk bi ban yan kàddu la ngay. waaw faydu moom ci ndaw ñi du wax rek lu dul gën leen see ñaax rek pour xam ne mooy njariñ li nga xam ne ci la jaam bi mën a jëriñoo ndax yàlla si boppam dara taxul mu bind jaamam bi lu du mu gindeeku ci xam kuy kan mooy boromam bi loolu xamee nga xam ne mooy sabab bi bind bindee fi yi taxut mu jafe taxul mu yombal ko ci benn jamono moom yàlla xam yàlla pour jaam bi gindeeku xam yàlla xam boromam taxul mu yombal ko li ma namm ci taxul mu yombal ko mooy jamono ju mën a doon képp koo xam ne yàlla joxoon na la cër boobu daf la cee tënkoon ci xam ji waaye it laa xul boyalu la woon pour nga ne man maa ki nga xam ne maa koy xamal jaam yàlla yi kon bu jamono di dox di jamono di dox ba jamono yàlla boole laa nga daj bokk si ñooñ jamono yooyu ndawi jamono yi nga xam ne fekk nañ saay bul fayda feeñ ci jamono boobu saay bu samaan saay bul waxti ki nga xam ne moom la yàlla jox loolu ba mu wax ne wa qultu laa ilaha illallah wax naa laa ilaha illallah muhammad arsalu ila fa faada min ni sirruhu fala ahat yaqsudi ni maarafalaaw samat wax naa laa ilaha illallah muhammad arsalu ila mbootam yàlla mi bëbbee ci man amul kenn koo xam ne dana ma jublu lu dul xamal naa ko borom bi sawaawun sixaar wa kibaar sawaawun saxlu wa sul loolu yëpp wax la joo xam ne ay junj la yu muy wax rek ay junj la yu muy wax rek mhm. kon ku jamonoonteeg saahibul waxti mhm. ci jamono jooju ci xaal boobu dara waru la nga am sensu jindeeku ne moom la dara waru la lu mun nga góorgóorlu ba tënku ci loolu loolu rek laay digal ndaw ñi te benn ndaw mënta am nekk qualité mhm. ci biir quantité bi nga nekk ci qualité lu dul da ngaa am maarifatu billaay maarifatu billaay nga xam ne mooy li nga xam ne mooy sababi bind kawnu bi yëpp loolu rek moo tax yàlla bind mbindeef yëpp bàyyi ne yu aadiru nii fitiyaanu sitqin ndaw yi dëggu teew nañu ak man ndaw yu dëggu yooyu noonu xat axlasu ilallaahi xasdan lan na moota wala naxya mënul wér mukk lu dul nga am nga nekk aarif billaay xam yàlla gindeeku ci yàlla gindeeku gindeeku goo xam ne mooy nekk sa njëriñal tey ak sa njëriñal ëllëg bu ñu waxee xam yàlla nag mbooleem xam-xam yi daf ci lab ndax mooy xam-xam boo xam ne benn xam-xam fariwu kaw da ci fekk sariatu da nga ci fekk xaqiqatu ñaari ndab yooyu li leen boolante mooy maarifatu billahi